yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñeent fukkeelu njàngale mi ak juróom benn reer bu mujj ba nanu bamtu nettali yi weesu benn lan la wax mbaane bu amoon alal ba gëmoon ne moo koy yóbbu ci nguuru yàlla liggéeyam ak topp ndigali yàlla yi ñaar lan la yeesu jàngale ci mbirum mbaax walla njubte yàlla rek moo jub te moo baax ba mu mat kenn mënul jub te baax ba mën a taxaw ci kanamu yàlla nun ñëpp bàkkaarkat lañu ñett lu tax waxambaane bi am alal am lu ko metti ba jóge ci wetu yéesu ndaxte alalam moo ko ëppal solo yàlla ñeent lan moo ëpp solo alalu àddina gëm yéesu ngir mu jële nu ci bàkkaar te jox nu dund gu dul jeex ca yàlla mbind mu sell mi nee na ci Macë saar ñaar fukk ak benn aaya fukk ak ba aaya ñaar fukk benn ca waxtu woowu kenn ci fukki taaliba ak ñaar ku tudd yuda iskariyo dem ca sëriñ su mag sa ne leen lan ngeen ma mën a jox ngir ma jébbal leen yéesu noonu sëriñ sa daal di ko wañal fanweeri poseti stater li dale ci saa soosa nag yuda di fexe jamono ju leen mën a jébbal yéesu bés bu jëkk ca màggal ga wax mburu yi amul lawir taalibe yi ñëw ci yéesu ne ko fa bëggoon nu defaral la reeru màggalu jéggi ba yéesu tontu leen dem leen ca dëkk ba jëm ca diw ngeen ne ko kilifa gi nee na sama jamono jege na ci sa kër laay màggal si xewu jéggi ba man ak samay taalibe noonu taalibe yi defar reeru jéggi ba na leen yeesu waxe woon bi nga xamee ne timis jot na yeesu toog di lekk moom ak fukki taalibe yi ak ñaar bi ñuy lekk mu ne leen ci dëgg maa ngi leen koy wax kenn ci yéen dina ma woor bu leen fàtte ràññee melokaani yàlla yi ci nettali bi reer bu mujj ba nettali bi mu ngi aju ci reer bu mujj ba màggalu bësu jéggi bi mu ngi doon jege si nit ñu bare dem yerusalem ngir màggali fàttaliku leen ne bésu jéggi bi mooy bés bi yàlla jële waa israel ci njaam ci misra loolu xew na ganaaw ba yàlla wàccee fukkeelu musiba ba ca misra ca bës boobu waa israel waruñu woon bàyyi benn lawir ci seen biir kër waroon nañu rey xar itam gannaaw loolu waroon nañu taqal deretu xarma ca seeni kaw bunti kër ak ca ñaari wet ya bi malaaka déegi ñëwee ca réew ma bi mu gisee deret ja reyul taw bu góoru kër ga boobu ba léegi at mu nekk waa Israël dañuy màggal bés bi war nañu ci rey xar yeesu ak ay taalibeem dem Yerusalem ñoom itam yéesu war am mbaam dugg yerusalem loolu bokk na ci li mbind mi yëgle woon ci mbirum yeesu mbind mi nee na gis ngeen seen buur a ngi ñëw war mbaam bu ndaw ñu bare génn ngir teeru ko ñu lal ko seeni yére ci yoon wi am itam ñu dagg ay caru garab teg ko ci yoon wi nit ñiy xaacu naan màggal leen yàlla na yàlla barkeel kii di ñëw ci turam na yàlla barkeel nguuru daawuda gii di ñëw màggal leen yàlla nit ñi màggal nañu yàlla ndaxte gëmoon nañu ne yéesu mooy almasi bi yàlla dige te yonent yépp yëgle ko waaye li nit ñi bëggoon moo yeesu jële leen ci nooteelu waa room yi sàkkuwuñu woon yéesu musal leen ci atteb seeni bàkkaar xamuñu woon lan moo tax yéesu ñëw àddina ca ëllëg sa yeesu dem ci këru yàlla ga mu gis nit ñi def ëttu kër yàlla ga ab marché mu di mer mu daaneel taabal yi dàq nit ñi yéesu ne mbind mi nee na sama kër dinañ ko wooyee këru ñaan ci yàlla waaye yéen def ngeen ko këru sàcc gannaaw loolu sëriñ yi ak xutbakat yi tàmbali fexeel yéesu ngir ñu rey ko yéesu xamoon na ne waxtoom jot na yeesu ne léegi nag dama jàq lu may war a wax mbaaru dama naan bay musal ma ci li nar a xew waxtu wi ñëw déedéet ñëw naa sax ngir jaar ci waxtu woowu bay màggalal sa tur kilifa diine ya ak xulbakat ya di yoon wu ñu tuumaale yéesu ba ñu rey ko waaye ragaloon nañu nit ñi ndaxte ñu bare gëmoon nañu yeesu ñu bare gëmoon nañu yeesu ndax ay kéemaanam ak njàngaleem ak yeneen ak yeneen yu mu def noonu seytaane dugg yuda iskariyo kenn ci fukki taalibe ak ñaar yuda daldi dem ci sëriñ yawut yi waxtaan ak ñoom ci naka lay waree yeesu ñu jox ko fanweeri poseti xaalis loolu matal na li yonent yàlla sakariya waxoon yuda bëggoon na leen jébbal yeesu fu ay nit nekkul yuda taalibe yeesu la woon waaye xamul woon ci dëgg lu tax yéesu ñëw ci àddina yuda wor na yéesu bi mu xamee ne yéesu jéemula nekk buur waa israyil yéesu xamoon na kan moo koy wor yonent yi bindoon nañu ne kenn ci taalibey musalkat bi dina ko wor yéesu xamoon na loolu lépp ba su jégg ba ñëw yeesu bokk reer ak ay taalibeem ci ab néeg bu féete ci kaw genn kër ci yerusalem yéesu jël mburu mi sant yàlla damm ko jox taalibe yi yeesu ne mburu mi mu damm dafa mel ni yaramam mi muy joxe ngir ñoom dina de ngir fay bàkkaari àddina yéesu neleen leen ndoxu reseñ mi ñu naan dafa mel ni deretam ji nar a tuuru ngir ñoom képp ku gëm ne deret jooju fay na say bàkkaar yàlla dina la baal say bàkkaar te dinga dëkk ak yàlla ba faw bi muy lekk mook taalibe yi yeesu ne leen kiy caf mburoom ci boolam moo koy wor ni ceeb mel fii noonu la mburu meloon ci yawut yi taalibe yi di laajante ci seen biir nan kan moo nar a wor yéesu noonu ñuy werante ci seen biir nan kan moo gën a màgg ci ñoom bi ñu reeree ba noppi yeesu jóg jël ab sarbet laxas ko ci ndigam mu sotti ndox ci ab këll tàmbali di raxas tànk taalibe yi mu leen di fompal seeni tànk ak sarbet bi mu laxasoo yéesu ne leen bàyyil naa leen fi royukaay ngir ngeen di jëf nii ma jëfeek yéen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax jaam gënu la màgg sangam mbaa ndaw ki la yónni gannaaw xam ngeen loolu bu ngeen doxalee noonu di ngeen bég noonu yeesu ne yuda mu gaaw def li mu war a def taalibe yi xalaatoon nañu ne yéesu dafa wax yuda mu jënd li war ci bésu màggal bi noonu yéesu ne taalibeem yi bu ngeen ma bëggee di ngeen topp sama ndigal te dinaa ñaan baay bi mu jox leen beneen dimbalikat buy nekk ak yéen ba abadan kooku mooy xelu yàlla mi yor dëgg gi àddina du ko mën a nangu ndaxte gisu ko te xamu ko yéen xam ngeen ko ndaxte mi ngi dëkk ak yéen te dina nekk ci yéen des na tuuti ci kanam àddina du ma gisati waaye yéen di ngeen ma gis dinaa dund moo tax yéen itam di ngeen dund bu keroogee di ngeen xam nag ne nekk naa ci sama baay yéen itam nekk ngeen ci man te maa ngi nekk ci yéen ki ma bëgg mooy kiy nangu sama ndigal te di ko topp ku ma bëgg baay bi bëgg la te man dinaa la bëgg di la feeñu fii la nettali bi yem am naa ay laaj benn lan la yawut yi di màggal ci bësu jéggi bi dañuy màggal bés bi malaaka déegi musalee seeni taaw yu góor ndax xar yi ñu rey ngir ñu wutu taaw yi ñaar lu nit ñi def bi yeesu duggee yerusalem war am mbaam lalal nañu ko seeni yére ci yoon wi nit ñi xaacu naan màggal leen yàlla nit ñi màggal nañu yàlla ndaxte gëmoon nañu ne yéesu mooy almasi bi yàlla dige ñett lu ñu yaakaaroon ne moom lay yéesu di def nit ñi bëggoon nañu yéesu jële leen ci nooteelu waa yi xamuñu woon lan moo tax yeesu ñëw ci àddina ñeent naka lañu xamee ne yéesu xam na li tax mu ñëw ci àddina yeesu xamoon na ne waxtoom jot na xamoon na ne dafa ñëw ngir dee ndax sunuy bàkkaar nee na ñëw naa sax ngir jaar ci waxtu woowu juróom lu tax sëriñ yi ak xutbakat yi jàpp ñu yeesu rey ko ci saasa xamoon nañu ne yéesu amoon na tur yaakaaroon nañu ne bu ñu ko jàppee nit ñi dinañu wëlbatiku ci seen kaw rey leen juróom benn ñaata ci xaalis la yonent yi wax ne dinañu ko jaayee sët bi yàlla dige fanweeri poste xaalis juróom-ñaar ñaata lañu jaayee yeesu fanweeri poste ci xaalis ni ko yonent yi waxe woon juróom-ñett kan la yeneen yi wax ne dina wor sët bi yàlla dige ab xaritam bu ko jege juróom-ñeent lan la yeesu méngale ak mburu mi mu damm yaramam wi ay noonam nara damm fuk lan la yéesu méngale ak ndoxu reseñ bi ñu xelli deretam ji nara tuuru ngir ñoom bi mu deewee fukk ak benn lu ngeen xalaat ne moo tax yeesu raxas ay tànki taalibeem dafa doon wone misaal ne waruñu yitteel kan moo gën a màgg ci ñoom waroon nañoo dimbalante fukk ak ñaar lu yeesu wax ne moom la ñuy def bu ñu ko bëggee war nañu topp ay santaaneem fukk ak ñett kan mooy dimbalikat bi yéesu wax ne dina ko yónni mooy xelu dëgg gi xel mu sel miy dëkk ci taalibe yi yan melukaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe yàlla bëggul bàkkaar yéesu dàq na nit ñi ñu génn kër yàlla gi yàlla xam na lépp yeesu xamoon na ne waxtam jot na yéesu xamoon na ne benn taalibeem dina ko wor gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yéesu ñëw na ngir jariñ nit ñi ñëwul ngir nit ñi jariñ ko raxas na tànk taalibeem ngir won leen misaalu jëriñ sa moroom beneen yoon dinañu waxtaan ci naka la yuda waree yéesu